ku ci mel ne Serigne Mountakha Mbacké yal na yàlla guddal fanam Serigne Babacar Sy Mansour ak mboolem xalifa yi ci kaw suuf di leen ñaan yàlla wa nasara tabarakallahu di dellu ci beneen jataay mbir ñu fa seeni waxtaane mag ñi ndax mag ñi lañu am ndax zikru saalihina tatanazalu baraka Seydina Muhammad nee na waxtaanee gaa yu baax yi dafay wàccee barke ci yéen te yàlla may ñu ay mag ñu baax fa tabarakallah ñu fas yéene dugg na ci këru diine yëpp émission bi nag nekk jataayu mag ñi ñu fas yéene dugg ci këru diine yëpp bàyyiwuñu fenn murit xaadir tijaan laayeen ñeseen amul kenn koo xam ne rek Salam Vision dina la tëjal buntam lu dul ñëpp lu koy ibbi incha allah rabbi am na ñoo xam ne daa leen invité fii ñu ñëw ci jotaay bi ànd kook ñun waaye am na ñoo xam ne fa tabarakallahu daañu wàcc seen kër def ak ñoom li nga xam ne mooy émission bi ndax anziru naa sama naziruhu kenn ku ne dayoo bi nga toll rek lan lay jox fa tabarakallahu ndax yàlla moo doxee noonu te moo jàngale noonu Sidina Muhammad ñu bàyyi loolu ci xaar rek. te fas yéene ko def incha allah rabbi dimanche 11h ñu bëgg mbokk internet bi mbokki ñi nga xam ne fa tabarakallahu ñooy saxoo di seetaan seen émission bi nga xam ne tabarakallahu mooy jataay mag ñi ñu fas yéene leen ñaanal ñaanal suñu directeur général fa tabarakallahu moom it yal yàlla gën a guddal fanam yal na yàlla gën a sàmm ko yokk ko télé bi ba mu yaatu ba at ni yëpp jot ci bi jaay Seydina Muhammad xam alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu di leen bàyyiloo xel ci émission bu mag boobu wasalaamu aleykum wa